tout droit 4G business store. mayo original yi mayo yu baax yi nee naa leen mayo niveau ñoom ñoo ko fi am. mayo de compétition loisir blouson lacoste ba ci casquette. li ci gën a neex mooy dañ lay jaay mayo defal la flocage bu nice mu ànd ak badge officiel de la CAN. commandé leen gaaw ci 77 742 11 38. fu waay nekk ci biir Sénégal wala sax ci diaspora bi ñu defal la livraison nga jot sa mayo ni mu gën a gaawee.

wala weekend bi di wala voilà ta lol nak ñu leen di ñaan yeen nga xam ne yéen ngi suivre te abonné go leen waaw rag muy abonné la leen cloche de notification bi ngeen partager vidéo bi te bo leen di seetaan aussi ngeen di like di aimer vidéo yi am ci solo bu baaxa baax légui ñu ñew si li nga xamantene mom moy résultat yi dañ koy commencer fi nga xamantene mom modi ñongon di njongon njongon lamb amon na le 9 voilà ñongon ki nga xamantene mom modi pap di pap Demba bu jifer moom moo ko jël jël ko ci kaw monsieur Mané bu dëkk Bambougar poids léger Cheikh Ibra bi dëkk Soumloog jël ko ci kaw ki nga xamante ne moom moo di Modou Anta bi dëkk Mbul Jàmme bu fa jógee le 10 fi nga xamante ne moom moo di Sokone amoon na lamb arara bu moom moo ko jël jël ko ci kaw monsieur Mané bu dëkk Bambougar moom monsieur Mané dafa ñàkk ñaari final ci ñaari fan. bi ñu fa jógee ba tey ci mercredi bi le 10 janvier fi nga xamante ne moom moo di Fatick amoon na lamb lamb fes nag bi ki nga xamante ne moom mooy di Ndiaye l'homme de trois générations wala des quatre générations wala l'éternel sax moom Mamadi Ndiaye moom moo jël Fatick jël ko si kaw moo du fay ordinateur le champion d'Afrique poids léger yi ki nga xamante ne moom moo di Fallou Mbin Diab bu Caajaay moom moo ko jël jël ko si kaw Sini bu Bargny Fimela amoon na làmb ci jeudi bi le 11 janvier 2024 laa ki nga xamante ne moom moo di Toubacouta buuru Saalum wala borom jamono moom moo ko jël jël ko ci kaw jiijak bu jilaas poids léger yi ki nga xamante ne moom moo di ceeb bu Joal moom moo ko jël jël ko ci kaw Babou Sarr ndaamal daaru bu dëkk Diofior le traize boobu buñ fa jogee le 11 ñu dem le 13 ci samedi bi le 13 fi nga xamante ne moom moo di lonjor amon na lamb ñoxor alliance jeen mom moko ko jël jël ko ci kaw Babacar tin bu dëkk Ndondol le 13 bobu fi nga xamante ne di Fatick na lamb ki nga xamante mom modi di Ngagne sen Ngagne Sène bu jaga ñaw mom ko jël jël ko ci kaw ordinateur yi Boros El Bandi Boros bu Marfa Fako jël ko ci kaw tiep bu zoal fi nga xamante ne di Mbour amoon na lamb ci samedi bi le 13 janvier Siaka bu mbuur moom moo ko jël à domicile jël ko si kaw Papa Gueye bu Joal poids yi foofu ca Mbour Ndiak Sène wala Bellingham moom moo ko jël jël ko ci kaw ki nga xamante ne moom mooy Kornilaan bi dëkk joobaas le 13 ba tey fi nga xamante ne moom moo di Ndiafat amoon na lamb Ndiafat Mburook Ndambe moom moo ko jël jël ko ci kaw Njaago bi dëkk Nginin Ablaye Sarr bi dëkk Soum jël poids léger yi jël ko ci kaw. indépendance bi dëkk Ndiobène Talen le 14 bi ñu jógee ci samedi bi ñu jëm le 14 ci yi nga xamantene ne moom mooy dimanche bi voilà ci dimanche bi fi nga xamantene moom di Dakar terrain gaal gi amoon na lamb papongan jinni Saara wala Soosoox moom moo ñëw jël ko ci kaw malik Diouf bi dëkk revan poids léger yi Yaxadi bu dëkk Ngunjaan jël ko ci kaw monument bu li nga xamante ne moom di raw gadu bi voilà jantal men bu bee law be jël ko si kaw sow Mali bi dëkk campement Ngeexoox fi nga xamante ne moom di siwo amoon na lamb ci dimanche bi le 14 siwo bros El Bandi moom moo ko jël jël ko si kaw Lamine Sanko bi dëkk John kon Bros ñaari sorti la def ci weekend bi am ñaari drapeau bi mu jëlee poids yi fële ca daa dem si wo daa di jëlaat poids lourd yi si kaw Lamine Sanko bi dëkk Dionewar foofu ca siwo poids léger yi Alizé bu ndaayaan moom moo ko jël jël ko ci kaw Aliou bi dëkk Marsoulo yëngale aussi amoon na lamb le 14 si dimanche bi yëngale bato 2 bu Fatick moom moo ko jël jël ko ci kaw Biram Bisin Seen poids léger yi Mansour Tine bu soob ñaaxar jël ko ci kaw Cheikh Diouf raw gaddu yi Ouz Boy Ordi bi dëkk Kam yaak jël ko ci kaw Jamme numéro 2 Parar aussi amoon na lamb ci dimanche bi le 14 Mamou Zidane Mamou Zidane bu ñoojoor moom moo ko jël ci kaw Lagandong bu Fadiouth waa léger yi Aliou Petit Avion moom moo ko jël ci Saliou bu dëkk Ndofano Nguy voilà le 14 ba tey fi nga xamante ne moom mooy Ngéeñan amoon na lamb njom ñaal bi bu Ndiaye Obali bu Diofior moom moo ko jël jël ko ci kaw Pape Maroon Zaka xam-xam bu Joyin poids yi foofu cangee ñan laa juuf bu dëkk njànda moom moo ko jël jël ko ci kaw CFA bi dëkk soob jaxaw buñ fa jógee fi nga xamante ne moom mooy Fimela moo amaatoon lamb ci lënd bi la doon jeex Fimela Papa Ngaan Sossox jinni Saara moom moo ko jëlaat jël ko si kaw soo Sossox nag fan yi daa tëg affaire yi ci charia parce que day mer ngemb du indi ay gàllaaj yu bari ñëw jël lamb yi ñaari sorti ñaari fan ñaari drapeau moom mo jël fele ci terrain gal gi ñëwaat jël fi nga xamante mom moy mooy la voilà lepp ci sharia kon bo Ngane ci sharia bala voilà poids léger yi ci ca la ñoxor Alliance Diène mom moko ko jël jël ko ci kaw ci bu Joal ñoxor Alliance Diène aussi def weekend bu ndax fatik Boros mom moko fa dan demi final ci goudi gi mu dem lo ndior jël ko ci samedi bi voilà. ñëw fi nga xamante ne moom moo di Fimela jëlaat poids yi kaw ceeb bu Joal ceeb bu Joal aussi def na semaine boo xamante ne semaine bu riis la parce que le 11 di moom moo jël Fimela dem Fatick samedi daanu final ñëwaat lundi daanuwaat final fi nga xamante ne moom moo di Fimela kon ceeb mu ngi si yoon bi ñoxor aussi ñoom ñëpp ay xale lañ voilà bon continuation à eux. foofu ca Fimela ba tey laaj siri laaj siri bu fiisal moom moo jël. poids léger yi wala moo jël raw gaddu yi jël ko ci kaw Assane Djini Saara bu Marlooj jàmme jilanka bi fim la moom moo jël poussière yi biir dëkkam jël ko à domicile ci kaw mbay ordi bi dëkk jam ñaajo voilà loolu mooy li ñu jotoon ci ay résultats ñu jàll si li nga xamante ni moom mooy programme yi programme yi nag dañ koy commencé jooral le 19 le 20 ak le 21 vendredi samedi dimanche fi nga xamante mom moy joral amna lamb ñu tek fa 10 bœuf ak 100000 francs vendredi lay commencer jeex samedi tout droit wala jeex dimanche tout droit joral le 19 le 20 ak le 21 dimanche lay jeex 10 nak lañ fa tegal mbër yi xam 2 3 ak 5 lay doon raw ga 2 bœuf poids léger 3 poids lourd 5 voilà buñ fa joggé tamit le 19 ak le 20 vendredi ak samedi. fi nga xamante ne moom moo di Ndaga Njaay am na làmb Samba Faye production moom moo fa woote tegal mbër yi huit nag ak trente wala huit nag ak cinquante trois mille tout droit Ndaga Njaay Ndaga Njaay nag ak Ganjaay daanaka benn la voilà vendredi mooy poids léger bi ñu teg ci ñetti nag ak dix huit mille francs samedi lay jeex poids lourd ñu teg ci cinq nag juróomi nag ak trent cinq mille francs tout droit Ndaga Njaay vendredi ak samdi voilà ci samedi bi fi nga xamante ne moom moo di Ndangaan Samb am na lamb les frères unis de Ndangaan ñoom ñoo fa woote tegal mbër yi mise 1 million 300 mille benn fan la ñaari drapeau poids léger 300 mille poids lourd 1 million de francs CFA ca Ndangaan Samb lay amee. ci samedi boobu ba tey fi nga xamante ne moom moo di ñaaxar am na lamb ñaaxar Thier maam Thierno yàlla mbaaronge moom moo fa woote tegal mbër yi juróom ñaari nag set bëf. ak ñaar fukki junni cent mille francs sept boobu plus cent mille francs à Niakhar ñaari drapeau lay doon poids léger deux poids lourd cinq tiers yàlla mbaronge moom moo fa woote ci samedi bi benn fan la ñaari drapeau waaye ci samdi boobu ba tey fi nga xamante ne moom moo di Dakar arène Adrien Senghor am na lamb waa Fathia production ñoom ñoo fa woote tegal mbër yi mise un million de francs CFA ci samedi bi voilà bu ñu fa jógee samedi ak dimanche le 20 ak le 21 fi nga xamante ne moom moo di ñaning am na làmb ñaning le 20 ak le 21 deux jours la deux drapeaux 1 million 500 mille lañ fa tegal mbëri poids léger cent mille poids lourd 1 million samedi la ak dimanche waaye samedi boobu ak dimanche ba tey ci Petite Côte bi fi nga xamante ne moom moo di Ngaparu am na làmb Ngaparu ñu ngi fay tegal mbëri mise deux million deux jours la deux drapeaux la. voilà samedi le 20 ak dimanche le 21 janvier 2024 tout droit Ngaparou 2 millions lañ fa tegal mbër ñaari fan. ñaari drapeau ci dimanche bi fi nga xamante ne moom mooy Dakar am na lamb arène Adrien Senghor ba tey. Abla job sum production mom mo foote sum production bi nga xamante nak nag saa yu mu neex ndax xamna na lamb te mën lamb mom mo woote Adrien Senghor dimanche tegal mbëri mise 1 million de France CFA kon Adrien Senghor day am lamb samedi 1 million dimanche mu amat benen 1 million. waaye dimanche ak lundi fi nga xamante ne moom di Samba ja am na lamb ancien gouloir yi nga xamante ñom ñoo dëkk ci arrondissement fimla ñom ñoo wote Samba Dia sargal suñu papa suñu maam suñu nijaay suñu lépp Landing ñaan nekk nit koo xamante ne def na lu ne si làmb ñu tegal mbëri mise un million cinq cent mille francs poids léger dimanche cinq cent mille lundi lay jeex ñu tegal mbëri un million de francs CFA voilà ancien gloire yi nag ak li ñu def ci làmb yëpp yaakaar naa bu ñu wootee ñëpp a war a def teew waaye nag ki ñuy sargal Landing ñaan yaakaar na am na ñu seetaan émission bi ñu def ak moom nga xamante ne làmb bu yëgsee fii ci arrondissement Fimela yàlla ak moom la bu demee tey booy wax arrondissement Fimela mooy championnat Angleterre ci lamb moom liggéey na ci liggéey bu am solo ba tax na bu ñu fi nekkee di ay réglement ay calendrier ay commission ci lamb arrondissement Fimela tey moom moo ko fi indi te xam naa Sénégal bokk sa ñu bokk na si ñu ko njëkk indi ci arrondissement am yeneen arrondissement yi roy ci moom kon laa ndig ñaan boo leen koy sargal yéen Angers Goulouard yi yéen a ngi sargal ku mata sargal a ngi sargal ku ku mérito vraiment muy acte bu nice kon amateur yeeg mbëri yéen ñëpp ñu leen di jox rendez-vous Samba Dia dimanche ak di un million cinq 500 mille lañ fa tegal mbëri ñaari fan ñaari drapeau arrondissement la région de Fatick bu kenn des ndax bis boobu bis bu rëy la ñi ko organisé ñoo tax waaye ki ñuy sargal gën cee nekk loo xamante ne voilà def na lu ne si làmb kon jaajëfal nañ leen bu baax a baax a baax